bisimilah rahmaani rahim barke Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif barke El Hadji Malick barke Cheikh Seydi Aboubacar. mbooloo mi maa ngi leen di bu baax di leen ziyaar di ñaan yàlla jàmm di leen ko ñaanal may ñaan rek ngeen déglu ma religieusement parce que li may wax gàtt na mais am na importance. ma am mbégte ak kontaante tey taxaw fii ci HLM. boo xam ni fii laa nekkee présidente de section du parti socialiste à l'âge de 26 ans fii laa nekkee présidente de coordination secrétaire général à l'âge de 30 ans fii laa nekkee secrétaire politique du mouvement national des femmes du parti socialiste fii laa nekkee sénatrice fii laa déggee maire kon man lu am rek HLM la may wax nag bés bi lu ko waral bala may ñëw ci loolu ngeen baal ma àq ngeen may ma rek une minute de silence pour samay anciens camarades de parti sama yaay ak samay papa yu àndoon ak man di ma jàppale bi may politique nekk ci dëgg te man ko booba aw ma ans parce que dama amoon ñu ma jàppale man samay papa rek laa jëloon ak sama yaay def leen conseillère parce que xamoon naa ne du ñu ma war ba ilaa yu mitin kon bu ñu taxawaatee fii tey ma dem ba dépassé la soixantaine te bi may politique xale laa seeni doom àndandoo ak man yéen yéen a baax man baaxuma maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di gërëm waa Rasane bala may ñëw ci ñi ma wuyu assemblée générale rasane la ñu woote jeudi lañ ko décidé nee nañu def assemblée générale pour campagne électorale bi mën soobu ci biir nag jàppale Macky sàll muy jàppale bu wér a alxames boobu ñu ko décidé ket ceeb la xaw ma moom ma siiwal nde assemblée bi rasane HLM rek la woon baka rasane dagana gi ma nëkk déggee dañ ne dañuy ñëw man leen bu fi kenn taxaw ma gërëm nag responsable APR fii ci HLM muy Jaraaf Ndaw yow yaag lan la Aïcha Fall sama rakk ji toog di sama doom bu nee bëgg ngeen Macky Sall dëgg la danaa ko mën a gëm ndax man lii may def defaluma ko sama bopp Macky Sall mooy xëcc moo bëgg parce que mooy président la République moo bëgg a am une majorité écrasante à l'Assemblée nationale ñu war ko jàppale kon su ma wootee ngir ak Macky Sall képp ku bëgg màkki Sall rek waroon nga fi teew waaye ku doon seetaan wala ku doon croiser les bras gis nga de ma naar naar yaa ngi kenn mënu ko lu ni fàng kenn ko nëbb lu li ni fàng kenn mënu ko nëbb waaye jaraaf yow yëkkati sa loxo ca kaw yow yaa bëgg Macky Sall bëgg gu wér dama wax ni mm. keroog bañ may fal conseiller municipal en 84 maa Khalifa Sall nous étions les plus jeunes conseillers de la ville de Dakar xanaa loolu yàgg na booba ay vingt six ans laa am kon ànd boobu ànd bu yàgg yàgg yàgg la booba Mamadou Diop mooy sunu maire yal na ko yàlla yërëm ma nekk troisième adjoint au maire chargé du développement social avant que je ne sois maire des HLM sama doom lan wax na ko bu doon sunu sago tey lu nu am fii lañ koy indi Bàmba nag yow kenn mënu la fay mhm. ndax bët mën na xool lu ko neexul waaye tànk fu mu dem xolam moom xolam ko fa yóbbu yow bu ma xewlee sama buntu kër yaa ngi taxaw mhm. bu ma xewlee ci HLM yaa ngi taxaw fu ma la woo yaa ngi taxaw Lalla Aïcha H&M mi yaa ko indi sama kër présenté ma ko mhm. ni ma dénk naa la sama doom laala wax naa ne la ba ngay wut maire giñ naa ci barke Cheikhul Khalifa bu ma ko teelul yéen yow laay àndal barke Seydi Aboubacar ndax man bi may jóg fekk na booba def ngeen seeni liste yi ba pare maa mbay ña ñëw ci man rek comme kenn seet si wu ma ma ne c'est le moindre mal parce que est avec le président de la république naa dem àndandoo ak moom loolu moo mu ci yóbbu ba mu jeexee jeex na man lu Macky Sall wax laa wax lu ma waxul waxuma ko lu Macky Sall bëgg laa bëggul bëgguma ko itam nang ma leen di wax ne lu yàgg dëgg la man Macky 2001 la ñu ànd 2001 bu ñuy ànd booba ma ngi ci Petrosen Chérif Samsidine dara ak Landing Sané ñoo ko indi sama kër yaraax booba Ahmed mi defe naa ay 5 la am xanaa loolu yàgg na muy sama rak nuy ànd di ànd ba mu nekk directeur général Petrosen booba cadre la bi ma bi ma koy xam nuy ànd di ànd ba ñu jox ko CIS nuy ànd dooy nuy ànd ba ñu def ko ministre d'état ministre de l'intérieur nuy ànd nuy ànd ba mu nekk premier ministre ñuy ànd ba mu teqale koog Ablaye Wade ba mu teqale koog Ablaye Wade deet àndiwuma ak moom waaye nanguma woon kenn wax ko dara ndax dama am fu ma jaar ak moom muy sama rakk yaayam téye sama loxo téye loxoom le premier meeting qu'il a organisé à Fatick j'étais la seule femme du parti démocratique bu demoon ci meeting bi meeting boobu Idriss Seck moo ko présidé bañ fa jógee seen kër la ñu dem yaayam Kumba Timbo bi ma gisee dafa tiit bi ko màkki ne kii mooy Aïda Ndiong mu ne ko kii kam mooy Aïda Ndiong bi doon xeex ak aram jiyéen mu ne ko mooy Aïda Ndiong mu ne ko mais ki xale la màkki ne ko yaay Aïda dafa dëgër fit rek te waaye xale la kon xam nga ne ànd boobu ànd bu yàgg la ba mu fale président de la république ay dogal ñëw ndax jaam dafay nangu dogal xëy na tey li xewoon su ma dalul su ma dalul woon duma ma ko nettali waaye ku ma gis xam ne man je personne propre j'ai commencé à travailler dans l'administration comme enseignante en 1973 j'avais vingt ans bi ma amee bac continué wu ma dama dem jàngale ci bi ma jàngalee ba am fu ma toll ma dugg ci syndicalisme ci la dugg ci politique avant que je ne sois même responsable politique laa ubbi samay entreprise 1983 laa ne laa ubbi entreprise tali yu bari fii ci Ndakaaru maa ko defar ku defar tali am milliard dama ni tali yu bare tali campenal bi maa ko defar route de Ouakam maa ko defar pavage yu mbedd yi poto yi du mees yi maa ko doon defar xale HLM yëpp daan ci liggéey ànd ak man waaye nag li ma wax rek nul ne peut échapper à son destin mais nag ngeen xam ni benn nit moo nekk ci sama xol bii ma bëgg ko lool muy sama rakk muy Macky Sall di leen ñaan bis naka tey fépp Forozane nekk ci Sénégal Adja Fama gay yéen a ngi may dégg présidente groupement yéen a ngi may dégg dama bëgg bëgg à partir de demain proximité bi commencé dinaa leen wax siège bi ngeen may fekk jaraaf nañu wut siège ay Aïcha foog ñu am fu ñuy toog bu ngeen proximité si mbay ba pare ñëw fekk ñu fa pour rendre ñu compte il faudrait qu'on doon au président Macky Sall une majorité écrasante à l'Assemblée nationale ci commune HLM war na gagné ak 80 pour cent loolu nag pour nu am ko wax leen ak seeni njaboot wax leen ak seeni doom nit dafay wax doomam dëgg foo ànd na fa sa doom ànd boo xamee ni teraanga bu ñëw nga indi ca kër ga wan sa doom wanal sa doom ni ko lii laa fa jëlee bët bu rusul dana toj wax leen seeni doom dëgg booy dénk nguur da koy dénk ko am yar da koy dénk ko am teggin da koy dénk koo xam ne am na lu muy ruus am na lu muy jomb waaye gangster yuy xeex di xuloo di raylu ay doomu jaambur dama ne di raylu ay doomu jaambur ku leen dénk réew booba xamuloo musiba Bàmba Kumba fa nga jëm Sénégal réewu jàmm la laa wax ku fi bëgg ay yàlla du ko nangu mukk ci àddina ñun de duñu xeexlu kenn duñu xulooloo kenn duñu saagaloo kenn ndax gor fañ koy ràññee du sax ci colin waaye ci jikko ji la Cheikh Oumar dañ ne ko fa ngor nekk mu ne kam du ci juddu de du ci juddu ci comportement la kon nag am leen comportement wu gor bu leen nangu ñu leen sànniloo ay xeer bu leen nanguloo ngeen di jam ay paaka nit ñi yéen ay nit ñu yiw ngeen Sénégal ay nit ñu yiw ñoo fi nekk dama leen di wax ni ñun suñu objectif je le dis devant la presse bés bu yàlla defee Macky Sall gagné élection yii son deuxième mandat de cinq ans dañu bëgg mu dugg ci nit ñi jàppale ko mu def ko ndax Sénégal doyaluñ ci moom ñun ci Macky Sall yàlla nag moo xam ëllëg lu muy def dama ne yàlla moo xam ëllëg lu muy def waaye nag ñun sunu yéene daan ko def sunu yéene daan ko wax maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant